لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق صومي جئت بسعى القصيد ساكرا لك بي وقبل ليخت فضلك سنت قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما سافعل وكل ما أردت منك انفعل آتيتني يا رب من لدنك شكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي وخيرها وجدت بالمحروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريما أعطيتني ما الخلب أنسى كلما ما دام نظر محوت سلما كافأني من ماله كفن أحد بمال خيري ساق كل من جات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفن أحد آمين amiin nit looy dàq fanweer at jotoo ko nanga nga dëpp xam ne dootoo ci jot sa ndey tënk say tànk liggéey bu rafetee boroom da koy fekk ñu ñaan ajoratu yëpp mu jàng yàlla guddal fanam te yokk wéram te xam ne lépp mooma waaye ñaanal alaaji baara mbuub waajuru waajur waajuru baax wa nga xam ni moo leen liggéeyal li bàyyi ko fi liggéeyal leen loo xam ni ginnaaw ba mu leen juróo ci juddu waaye yar leen ci lan li nga xam ne si la mooy mooy mooy mooy tardel nit muy rëy ak diis ak yaradiku leen daru leen ci seen waajuroo yar na leen ci loola ndax musoo gis damaa def émission ci Alaaji Baara am ku ma woo ni ma boo ma boo ma gisoon danaa la wax tuuti ci moom ndax Alaaji Baara ànd nag ay moromu commerçant dem France jëndi bagage mu jënd ba noppi maanaam commerçant ba maanaam comme Alaaji Baar mi ngi jënd woon 1000 francs ñu jaay waa ji 1500 mu ñëw ci hôtel bi toog ñu waxtaan Alaaji Baar ni ko loo jëndee ndax ñoo nurale mu ne ko ah jënd naa de mu ne ko ah damaa bëgg xam loo jënd rek mu ne ko ah man de ñett téeméer mu ne ko nan dem ku la jaay mu ne ko tubaab bi ñu dem ba ca tubaab bi mu ne ko kii lii nga ko jaay maa ngi moom bokk dëkk te boo ko jaayee ñett téeméer jaay ma ñett téeméer su ma demee danaa jeexal te du jarle jaay ko li ma jaayee baa ñu xaj ñun ñëpp loolu defe naa ne ñàkk ñaan la loolu dafa solo ci yar mu juddoo noonu macha allah ajaratu mu jang jur ko ma Jaxate jur ko Moor Jaxate jur ko yëmmul jur ko Masata ay Aysata Jóob saa xewar fan mi tëgg na di taal jàng yi waaye Aysata nag njàmme Jaxate xaali Amar soxna Mbàkke ak Modou Gorel ak Absa soxna Mbàkke bokk ndey ak baay Absa soxna Mbàkke la nu jox Musa Daaru moom ca xaali ma Jaxate la xaal ma jaxate kala dem kër nijaayam xaali amar soxna Mbakke jël fa binta jaxate ab sa jaxate jël am ca soxna binta jaxate ñu jox ko Siise Ture moom ca sëñ Aadi Ture ma ca Faas loolu bokk ak moom alaji baara jur ko soxna loo jur ko Yuusufa loo jur ko Mor Mareema jur ko Amar Aw Maam Joob jur ko Matar Xuja Daraame jur ko Aala Demba Sena ba Gay a ko Aala Demba Sena ba Gay ak Njaay Demba maami Alaaji Maalik ak Mbërgu Demba maami Sëriñ Tuubaa ak Njuga Demba maami Sëriñ Abdurahmaan loo bokk ndey ak baay jaay dem ba sena ba gay jël Kumba Caan am ca aram loo mu dem kër saa ndeena wele am fa daramaan wele mu jël Farma Diop am ca Bakar Farma Diop jox Mbata Fay moom ca Fawad wele jox Ousmane si moom ca Alaaji Malik bàyyi suñu Babacar mbërgu dem ba sena ba gay jur Balla mbërgu mu jur Daam Buri Sam mu jur Sali Loo mu janta Sali Kan jox Ballay sa moom ca Mamadou Sali jox ko moom ca Mamadou Jaar ak borom Touba njugo dem ba gay jur Mattaar njugo na si bu bu buñ fi deewee yàlla na baneen dolli kuwaat ci barkeb Serigne Touba ndax am na loo doon Niger ñu teewoon fi daaw muy bëgg na dem doon candidat mën a dem fa Assemblée national fa ñu yëkkatee kàddu ya fa ñuy waxee fa nga xamante ni suñu borom dafa wax ni wali kulli xawmin haadin nit ñu nekk yàlla dina si jël kenn mu di leen gindi yaakaar naa Serigne boo demeen Assemblée national ñun doomi daara ñun commerçant suñuy kàddu liñ bëgg yaakaar naa ñu bëree bëri den ci mën a jot. ci barkeb sëñ Mbàkke Madina sëñ Cheikh Mbàkke Madina yal na yàlla yokk leeram lislaam jëmul sëñ Mbàkke Sénégal yëbu ko bàyyi nañ ko xel ci doomi sëñ Tuubaa la bokk sët la bu sëñ Bamba jur lépp nag ñaanam gaa ko waral nañ la bàyyi xel lii nga fi woote mbirum yàlla la. jàng jot nga jàngi kokki sa baay forong la nga bàyyi sa alali baay sa ceebu baay ñu dóor lay jëng nga yelwaani jàng alxuraan moo waral lii sa digg alxuraan dara xaju fi lu muy bàyyi la ak alxuraan alxuraan moo lay wattul boppam lii rek laa doon wax. kon daal bisu tey bi bisu gërëma gërëmaat rek la lii yàgg nañ ko def ëpp na ñaar fukki at xëy na ab lay Mbaye nit bu ko yàlla baaxalee mu am benn euh, ndombal tànk bu ko yàlla. Euh, def moo tax ñu di fi tudd mbirum euh, xaw a laal politique waaye yow xam nga bu baax a baax li ma la wax sama diggante président xam nga ko bu baax a baax waaw kenn du ma yëkkati dóor ma ci kaw moom tamit kenn du ko yëkkati dóor ma ci kaw waaye xam nga ne nit ñi ne yow xam nga li xew ay nit ñu baax di gars yi di wax ne ne boo amee sa doom ju baax sax wala sa sa soxna su baax su ngeen xaritoo rek nit ñi jéem a yàq seen diggante loo def ñu ne soxna see ko def wala lu def ñu ne doom joo ko def loolu moom ci àdduna la nekk ay nit moom fu ñu àndee rek am na ñuy raatale ci biir waaye am na ñuy defar tamit xam nga dongal daara moom bu sañoon kenn ku ne dongal daara moom bu sañoon moom àdduna bi sax dongal daara ko yor loolu rek la xol lañ waxee rek waaye ñoom ñi ñëpp kenn wuute wu ci li Serigne Mountakha bëgg li Serigne Mountakha di digle ci lañ nekk surtout nag ñu nekk ci dëkk bi loolu leer na ñëpp kon nag man naa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla comme li ma wax rek mi di wax rek ne ah, réew mi ñun ñëpp ko bokk li ëpp solo rek mooy lii rek ak mbokk bëggante di dajaloo di waxtaan ndax mm, ah, eh, Sëriñ Tuubaa dafa am lu ñu jàngal ñun ñëpp nit ñi dañuy wax màggal yeeg xew yi bari na waaye màggal yeeg xew yi moo fi baax moo dajalee mbokk ndax bis bu ne nga dem foo xam ne nii yow waroon ngaa mën a jóg dem si daje fa ak fukki nit yoo xam ne da nga waroon a jóg dem seet leen te tamit woo ay nit màggal yee xew yi lan moo ci am mooy woo ay nit teral leen rek a fi am waa teral rek way toxal mën a taam ala hubbihi la wax ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran noonu la ko alxuraan wax kon képp ko xam ne da ngay dajale ay doomu di leen jox ñu ñu xewlu te bien que ñu am ko ala hubbihi la wax bien que ñu am ko nit ki moom danga ko teral fekk am na ko ba doyal ndax président Ablaye Wade dafa am lu ma mas a wax korité dafa mas a jot ma am ma gis ko muy joxe xaalis ma am lu ma yëkkanti boobu sax lu yàgg la lu ndaw la yëkkati ki dikk jox ko mu woo ma gërëm ma mu ne ma xam nga ne lii tey joxe naa lu mot fukkam waaye kenn dama dul jox su ma kenn dul jox soo ma joxee rek day rëy ci man waaw daf ko daf mu ne soo ma joxee rek day rëy ci man voilà kon nag Ablaye Mbaye jërëjëf ñu ngi lay jaale yow tamit ki ñu bokk Antoine waaw di gërëm ñëpp El Hadj Ndiaye kon daal wax jaa ngi noonu sëñ Matar jërëjëf aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani sant buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi salawaatu rabbi alayhi sant Sëriñ Tuubaa bu baax mi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg di siyaare ñi ngànq turux senegal Sénégal yëpp xulafaa yi fi nekk ak ñi yëngutu ci lislaam ci senegal yëpp ak sénégalais yëpp di bég lool ci bis bi nga xam ne noo ngi ci biir ramadaan ramadan mubarak sunu mbokk ci deret nu bokk menn maam ci sunu wàllu wayjur wu jigéen muy sëriñ buub menn maam lañu bokk ma di ko sant bu baax a baax ci taxawaay bile di sant ñi fi jota jottali kàddu yëpp te kàddu yëpp rafet di sant ñi fi teew ñépp góor ak jigéen mag ndaw di leen xamal ne itam maa jiite délégation euh, sëñ Moustapha Al Karam <laughs> euh, lii day lu rafet weeru koor di weeru woo xam ne kenn ku ne gis na ndam li ci lislaam am ndax alquranul karim gis nañ ko ci laylatul xadar gis nañu xare ba badar ak yeneen ak yeneen yeneen yi ngëneel nga xam ne sunu borom euh, daf ñu ci def ay exercice de mortification en quelque sorte pour ñu tàmmal sunu ñu yar sunuy roo loolu la ñuy def lu am solo la woowu nag boo ko tàmmee di dajale mbooloo mi lii lu am solo la ndax dëkk bi muy Tuubaa bu ngeen di seet ci àddina bi euh, yaakaar naa ne bariwul ay ndend ci ni ko Serigne Touba sose maanaam da ko sos ngir lislaam te loolu yaakaar naa ne bariwul te ci ay jafe-jafe itam te lu baax itam du yomb la ko defee ay kiimaan am ci mu am ay wax yu mu wax jox léppam Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam xelam xalaatam njabootam jëmmam room léppam mu jox ko Muhammadu Rasulullah ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala réew moomu dem bañ naan ci bu yàggul la fi doomam ju mujj jóge te mooy deuxième capitale réew ma yaakaar naa ne loolu bu ko Sëriñ Tuubaa waxee ne illa yaqaadallaahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin dana neexal leeral Euh, dégg nag moo am solo mu am solo waaw loolu sax day feeñ ba ci langage ci am moo yoo xam ne na muy bale à l'époque bu ñu koy décortiquer léegi beneen signification lañ koy nit ñiy jox waaw bu populaire beneen bu bokkul ak booba waaye lii moom euh, invité naa Ablaye Ablaye Dieye Cheikh Ablaye Dieye ci Daaru Xud mbaaru Daaru Xudus mu war faa def conférence nee bu ko masaan wax buñ ko masaan laaj magu ndar yi dañ naan ah doom létti mag kat gone di ko firi waaw mooy ilaya xadalaahuma loolu dafa mel ne kon projet projet da ngay def étude de faisabilité def requête de financement def adjudication mu nekk ci phase de réalisation dañoo nekkoon dañoo nekk nag léegi phase de réalisation mooy ñaan googee sëñ Tuubaa loolee wax jooje mu wax dafay réaliser wu fi ñu ci mbir yu bëree bëri ñu baax ñoo ña fa nekkoon itam ci wàll googu la ñu doxal képp Sénégal yàlla da ko dimbali li ñuy wax cerise sur le gâteau mooy jàmm dafay am ba noppi ñu baax nekk fii jëmbat ko fi ñu baax a baax a baax ci wàll gool dem rek ñu baax nga fa ba ci association islamique yeeg képp kuy tuddoo l'islam rek alhamdulilahi rabil alamin li ñu war a def mooy lépp benn la waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraxu munoo nag buum gi dafa mel ne léegi ñu bari bari dañ cee bëgg a jàpp te wa wàll gi nga jàpp nga bëgg koo dagg yóbbu fàtte wala tafaraxu ci kon nan nit ki nañ koy na ci sunuy xel di dem guddi ak bëccëg sëriñ li nga def nii lu rafet la euh, dajale ñu mel nii ci ci dëkk bi nga xam ne wax dëgg yàlla ay fajkat yi soxlaa ngi fi bu wér a wér wér donte nag man duma ma ji sama soxla ku dul suñu borom tabaaraka wa taala ndax ñi ma yàlla booleel sax man ab taalibe laa dama leen ne ku Cheikh Aliou ku ñëw ci yow ne la Cheikh Aliou nee fàqal aw yat sama ñaq la yaakaar kon alhamdulilah xam naa ne salle bi la salle regorge de de waaw ñu baax ñoo xam ne ñu ngi faj soxla ñu ngi fi bu wér a wér kon ñooñu boo leen dajalee tey ci weeru koor gi def nga sa waru gar sa bëgg réew mi kenn werante wu ko ndax lii lépp mën na cee bañ a fekk lu ñuy wut lu ne am nga ko ba pare am nga ko bëgg a defar senegal bëgg a defar doomu aadama yi roy ko ci Cheikhul Khadim na ko roye woon ci Muhammadu Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu rek moo la ci dugal kon alhamdulilah noo ngi leen di sant bu baax di jukkal Serigne Cheikh Madina di euh, fàttaliku sa waajur ci yar bu mel nii wax dëgg yàlla Euh, la mu def foon neenul ndax kenn ku ne war nga na nga jote turaas bi ci aw yiw ci mbaax ci jéem a defar réew mi ci defar sa bopp la waaj a waxoon bi mu gisee Cheikh Mamadou Moustapha ci jafe-jafe ci bi fi Sëriñ Tuubaa jógee ku wóot sëñ Tuubaa ku ne ñoom ñëpp dañoo am jafe-jafe mu ñëw ne ko dama laa bëgg a dimbali mu ne ko waaw góor waaye nag tàmbaleel ma ci sa bopp defaral ma sa bopp ba noppi bu kenn ku ne defaroo rek yëf jag bu kenn ku ne defaroo ah dootu sonn kon alhamdulilah sëriñ dafa mel ne danga xam loolu nga koy appliqué ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax kon képp ku fi teew yal na la yàlla jàppale gis nañ ne yéen a ngi dimbali doomu aadama yi ndax tuubaakat yëg nañ ko ñu am na ci yéen ñoo xam ne danañ wéet guddi woo nit yónni ko wala demal fa boppam bett ko dox ko loo xam ne bu ko xoolee rek day tiit te loolu moo gën a rafet ndax kenn ku ne xam na ne usine amu fi industrie amu fi dara amu fi waaw wallahi boo boo boo boo xamee Touba des profondeurs da nga xam ne yéen a ngi ci jaamu yàlla bu baax a baax waaw ndax nit ñi sonn nañu bu baax a baax a baax waaye lépp sutura la yërmande la yërmande joojee borom bëggoon wax dëgg yàlla mi ngi fi dox moo tax moom ñu mën a wax ne près de deux millions d' habitants ñi ngi fi defuñu recensement man nag dama koy proclamer tout le temps parce que on ne peut pas faire une planification sans un bon recensement c'est pas possible mënu ta nekk ci ngay basé wu pour mën a def planification voilà kon alhamdulilah yaakaar naa ne ça va pas tarder dégg naa lee mu am bu ñëwee yaakaar naa ne danañ ko def ndax man recensement bi passé am naa ñetti kër yoo xam ne kenn jaaru fa donc am naa am naa man na maa wax ne donc mën nañ koo gën a defar kon alhamdulilah rabbil alamin Sénégal li mu soxla mooy jàmm ñu taxaw tabaxal suñu réew ndax dafay am lu fi jiitu woon muy colonialisme boo xam ne ñoom waxtu wu ne ñooy am dëgg nun nooy ñu dañuy jox la ca des loo góor góorgóorlu góorgóorlu du feeñ invention yi bari nga dëgg ñu am ko nit ku ñuul ñoo ñoo def invention yi mais seen maître ya fa nekk ñoo ko sàcc wax na ñoo ko def mais boo jàngee ci ñoom wallaay lansim da nga xam ne noo leen man fuuf danan mokkal alxuraan ba noppi raw leen ci seen diplôme yooyu boo bu fekkee nekk nga fa lu baax la nga dem ba ci ñoom nag parce que boo ko deful da ngay complexe te complexe dara jaru ko ndax Serigne Touba jàngal na nu nu fonke suñu bopp waaw danoo war a fonk suñu bopp xam suñu bopp ndax ñu bari defe nañ ne boo waxee tubaab rek ku waxul tubaab bokkoo ci réew do intellectuel eh, da nga jàng ba xalima yi te doo nekk intellectuel intellectuel hauteur de vue la gisin la na sunu borom defoon muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu koy tagg ci makaarimul axlaaq noonee noonu la intellectuel mel day neutre intellectuel du par parloo day day du volet bas day dem ca kaw tiim ñëpp du par parloo du def dara intellectuel loolu la war def te day luy xalaat ak a defar ak a gindi doomu aadama yi ca lay nekk waxtu ne ku ku wuute loolu rek nekkoo intellectuel mën ngaa jàng ba ba xam téere yëpp waaye bu fekkee amoo yar amooy teggin ba pare amoo discernement ak xàmmeeg ràññee moom mbaam mu sa fi téere yeneen da ko jëriñoo mbaam mu sa fi téere kon alhamdulilahi rabbil alamin yal nañu yàlla moytul ñu nekk mbaam mu sa fi téere yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu fi yàlla eh, eh, yàgg dajale bi jaahi eh, rasulullahi salawaatu rabbi alayhi ci darajey borom tuba ñu ngi sant ñëpp ñu fi teew góor a jigéen mag ndaw kon Serigne ñu ngi dellu di la santaat encore di réitéré suñ cant ci yow euh, kon alhamdulilah lii rek la woon ah waxtu wane noo ngi diisoo ma ñuy bëgg ci yow nga nekk suñu fierté jërë ngeen